13 ngeen jëf mbokku déglukat yi asalaamaaleykum benn waxtu mooy soo ko jot ci njolloor gi li gën a fës xibaar fas yéene ko faram fàccee bokk na ci nag euh, ci màggal gi nga xam ne nag euh, jeex na euh, démb ñu ngi war a amal sax cérémonie officielle tey ji boo xam ne bu yam lay doon ñu ngi ñu commencé ñëpp si am accident bu ci nemmeeku ñett ñoo ci ñàkk seen bakkan ñëw ngeen ci xibaar ak tamit bilan bi nga xam ne sapeur pompier def nañ ko ci yooyu tamit ci li nga xam ne rek moom moo jëm ci foudre bi wax dënn yi ab nag ab nappkat bu mu rey fële ca Simbani Balanti dañ ci ànd ak ki nga xam moo nekk musa Dramé tey ji nag yemook euh, juróom-ñaari fan ci weer octobre di bés bu njëkk nag journée mondiale pour le travail décent Cheikh Diop bu CNTS FC loolu moo gën a fës ci xibaar yi Assane Wade la ñuy àndal Sud FM. El Hadj Malick Ndiaye. waxee woon rek ak tamit dem si di fekk Moussa Dramé Moussa ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax El Hadj ab nappkat nag fekk baax ca Mali moom la dënn bi rey démb bi deux heures du matin jotee ca Simbani Blanty loolu nag euh, mu nekk ca Sédhiou loolu mu ngi amoon nag fa nga xamoon nekk ca quai de pêche ba. waaw ni nga ko waxee noonu la El Hadj Malick euh, démb ci guddi ci boori ñaari waxtu maanaam deux heures du matin euh, la am taw boo xam ne dafa dooroon fii ci diwaanu Sédhiou ànd ceeg ngelaw waaw nag jamono jooje fekk na it euh, ñaari nappkat yi fekk baax ci réew euh, Mali waaye di euh, napp yi ci barab bi di Simbandi Balant féetewoo ci sew jant diwaanu Sédhiou ci boori maanaam frontière ak Guinée Bissau foofu nag dex bi ci nekk ci lañ nekkoon di napp ji ci jamono joo xam ne doon nañ yëg ci tefes ga bu ñu doon yëg ci tefes ga juste ci jamono jooju la am dënn boo xam ne dafa wàcc seen kaw mu am ci ci ñaar ñooñe a kenn koo xam ne euh, mu ngi tudd euh, Bakoroba man Menta mu dal di ci euh, ñàkk bakkanam si saa si ndax it lii di dënnu bi daf ko dal ci bopp bi ndax it dafa amoon deret boo xam ne fu nekk la doon génn ci bopp bi mu nekkoon loo xam ne it lu tiis la foofeet ci Simbandi Balante kii di jaraafu commune bay di Famara Kalbermané daal di eh, wooy ñoo xam ne si ñoo di gendarme yi nekk ci brigade Samine ànd ci ak ñoo xam ne ñoo di waa kër docteur yi nekk ci Goudomp ñu ñëw eh, jëli néew bi waaye nag nekk na loo xam ne lu tiis la ci eh, barab boobu la di fàttali rek lu jëm ci wàllu lii di dënnu gis nañ ne daanaka dafay faral di wàcc fii ci diwaanu Sédhiou donte sax kilifa yi dalal na xel na it lu jëm ci wàllu paratonnerre yi maanaam loo xam ne moo di jumtukaay buy aar li nee nañu dafa am fii ci diwaanu Sédhiou fu bare foo xam ne samp nañ ko fa. waaye loo xam ne mooy euh, te xelu askan wi bare moo dina rek euh, lu ñuy duppee fonctionnalité ndax dafay dox wala doxul lan moo ci war am ci lu leer ba tey daal moo xawoon di desandi ba tax na it tey jii nag ñu bëri am ci njàqare lool ndax it naka daaw sax euh, fii ci diwaanu Sédhiou ci préfecture ba rawatina foofe am na dënn boo xam ne dafa am yàqu-yàqu yu bëri yu mu def ci jumtukaay ca nag donte sax barab ba am na paratonnerre loolu yëpp bokk na ci loo xam ne askan wi nelawtuñu ba yandoor ba tax ne tey jii ñu sàkk buur ñu fexe ba gëstu lu ni mel ndax wàllu kaaraange gën a yàgg ci barab bi Moussa Dramé ci Sédhiou pour Sud FM. Moussa Dramé ñu wax ci li nga xam ne rek moom mooy Magal Touba gi nga xam ne jeex na démb euh, fi mu toll nii nag euh, ñi ñu ngi commencé ñëpp si am na accident boo xam ne mekku lañ ko ñett nit ñoo si ñàkk bakkan boo kam-kam ne fukki nit ak juróom-ñeent la dañuy dem ca Touba fekki fa tuuti say tuuti ñoo ngi lay nuyu. Euh, dañ ci ànd ak kii tuuti ci kanam léegi ak tamit magal gi nga xam ne jeex na démb euh, ci Touba ñu ngi amal nag war a amal cérémonie officielle bi tey jii cérémonie tey jii nag lay doon dañu dem ci Touba fekk fa tuuti say tuuti ñu ngi lay nuyu. ñii yaa ñuy toppal mbirum màggal gi ak tamit lépp lu xew foofu ci dëkk bu sell bi di Touba euh, am na nag bilan bu jot a amagum ñetti nit ñàkk seen bakkan fukk ak juróom-ñett bokk gam-gam la ba yëf yi dooree ba léegi. waa euh, ñett yi jooyu ñàkk seen bakkan léegi nii la ci suba si ci jamono yi nga xamante ni taalibe yi ñëwoon ci màggal gi ñu ngi tàmbali di dellu fi nga xam ni fa la ñu jóge woon ginnaaw bi nga xamee ni nag teew nañ li nga xam ni moom mooy màggal édition deux mille vingt ñu remeeku nag ren ji nii mbooloo mu takkoo takku ñëwoon nañu fekk ci màggal googu jógee fu nekk ci réew mi ak ci bitim réew Euh, mu nekkit loo xam ne nemmeeku nañ ko fi nga xamante ni moom mooy ci biir Touba ñu tàmbali nag di delluwaat fa nga xamante ni foofu la ñu jóge woon ci chemin du retour bi ñu nemmeeku benn accident moo xam ne amagul na jii ci suba ci yoonu Diourbel bi eh, ci boori fi nga xamante ni moom mooy dalangaabu mu nekk nag benn deux moo xam ne oto moom moo dal ci kawam ci deux bi nag gis nañu ñeenti nit ñoom ñoo ci nekkoon ñaari nit yi dem dañoo faatu ci saa si ñetteelu nit bi eh, bi ñu koy yóbbu ci hôpital ci la ñàkkee bakkanam eh, ñi ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy waa sapeur pompier ñoom ñoo demoon ci bërëb bi accident bi amee ñu xamal ñu ni bi ñu tàmbalee eh, def seen dispositif yëm ci màggal gi ba gi lu tollook mais ñeent fukk ak ñett sorti def nañ ko ci yoo xam ni accident de la circulation la am na juróomi téeméer ak juróom-ñaar ko juróom-benn yoo xam ne ñoo ci nekk ay victimes juróomi téeméer yi ak ñeent fukk juróom-ñaar eh, am ci ay gaañu gaañu fukki nit ak juróom-ñeent ñàkk ci seen bakkan. Euh, ñu gis tamit ni am na ci yeneen ñaar ñoo xam ne ñu ñàkk seen bakkan la ñu waa sapeur wañ wàññi muy kenn koo xam ne courant moo ko maas ba mu faatu ak kenn koo xam ni dañ koo fekk mu ñàkk bakkanam leneen li nga xam ne tamit waa sapeur pompier tënk nañ ko ci euh, bisub tey bi mooy ne euh, am na ci ñaari sorties yoo xam ne def nañ ko ngir lakk benn oto bu doon lakk ak benn kër bu doon lakk génn nañu tamit def nañ tamit lu tollooku téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett ci ay consultation médicale ci maanaam ci wàllu wér-gu-yaram ñi nga xam ne ñooy waa sapeur pompier également El Hadj Malick def nañ lu tolloo juróom-ñett fukki génn ak ñett yoo xamante ni euh, ndox la ñu doon euh, yóbbul ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan bi mu nekk nag loo xamante ni lu am solo la ndax ren ku ne xam na ni jafe-jafe ndox amoon na ci jamonoy màggal gi niñ koy nemmeekoo at yu bëri fi nga xam ne mooy Touba ay quartier yu bëri ñoom am jafe-jafe ngir am li nga xam ni mooy ndox ci jamono yi nga xam ni tàng na également ñuy wax tamit ñu topp li nga xam ne mooy cet ngir ngir moytandiku yenn jàngoro yi rawatina jàngoro bi nga xam ni moom moo xew fan yi fi nga xam ni moom moo ci Sénégal ñàkkum ndox boobu nag tax na ba askan bu bëri di wax ni daal eh, fi na ne nii war nañ jël ci ay saafara ndax at mu jot yooyu coono la ñuy dugg dund ba ci tax ren ji ci yi am na ci quartier yoo xam ni bëccëg gi dañuy am jafe ndox guddi gi la robinet di xel li nànk nànk ba tax na lool it nekkoon na ay gàllankoor ci li nga xamante ni moom moo soxal wàllu dalal gan yi ak lu jëm ci wàllu set ak sellal gi nga xam ni moom la ñu waroon a jëfee ci jamonoy màggal gi nga xam ni mën nañu jàpp ni eh, jeex na yi nga xam ne ñoom ñooy askan bi ku ci nekk di tàmbali di delluwaat fa nga xam ni fa nga jóge woon di fee ngeen si doon jokkoo fii si Touba pour Sud FM tuuti sëy sapeur pompier nag def nañ toll ci rek deux cent soixante six sorties xeetalu toll ci rek maanaam six cent trois personnes ñaar fukki ni ñoo ñàkk seen bakkan fukki ni ak juróom-ñeent ci accident lañ lieutenant colonel Cheikh Tine commandant détaché ca ñu déglu ko. fii toll ci màggal gi def nañu ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay gén ay intervention euh, gis nañ ni euh, juróom-benn téeméer ak ñett ci ay victimes kon compté nañ leen ci biir ñooñu. Euh, sauvé nañ ci juróomi téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar waaye euh, am na ci ñaar fukk ak benn yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan te fukk ak juróom-ñeent yëpp ci accident la suñ ko xoolee nag ak année passée mel na ne année bi moo gën a xaw a bari ndax daaw ci fii nu toll nii euh, fukk ak juróom benn rek ñoo ci ñàkkoon seen bakkan te fii ñu ngi ci actuellement ñaar fukk ak benn donc loolu nag daf ñuy may ñu wax population bi wax chauffeur yi nanu def ndànk màggal gi nit ñaa ngi ñibbi seeni kër ñëppay bëgg a dawandoo ñoo ngi ñaan chauffeur yi ñu sonnee nañu toog noppalu nañu daw ndànk te nañu euh, respecté code de la route population bi ñi nga xam ne dañoo bëgg a jéggi tali itam ñu ngi leen di ñaan bu dee ci autoroute bi nañu jaar ci passerelle yi ndax passerelle yi loolu moo tax ñu teg ko fi képp kuy jéggi tali bu dul autoroute à péage aussi ñu ngi lay ñaan nga nga def ndànk xool bu baax ba mu leer la ne auto ñëwul nga doon a jàll. mu nekkoon lieutenant colonel tin na doon indi ay leeral ñu wax ci wàllu mbas mi ak tamit point de jour bi te ji nag euh, fanweer nit ak ñett ñoo am bopp ci di coronavirus juróom-ñaar yi nag dañ ko jëlee import bitim réew fukk ak juróom ne bokk transmission communautaire bi ñeenti cas grave lañ ñu ci réanimation léeg ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye directeur de la prévention. ci junni ak ñeent fukk ak ñaar test yi ñu def fanweer ak ñett ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci fukki cas contact mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am na ci juróomi ñaar cas ñi nga xam ne ay importé lañu mooy ñu jógee bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukk ak juróom-benn cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi waaye xamuñu ku leen ko wàll wala fi ñu ko jëlee ñooñu nag seen lim nii la tëddee Tiwaawoon am na ci ñett Dakar Plateau am ci ñaar Guinguinéo am ci ñaar HLM 6 am ci benn Liberté 6 am ci benn Mamel am ci benn Mariste am benn Médina am benn ñaari tali benn waagu ñaay benn pikin am ci benn Saraya am benn ak Scat Urbam am ci benn juróom benn fukk ak ñaar si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñeent malade ñu nga réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb talaata juróom benn fan ci weer octobre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk ba Sénégal waññi na fukki junni ak juróom yu teg téeméer ak juróom-ñaar ak ñeent ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ñooñu fukki junni ak ñaar yu teg téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett nañ si ñett téeméer ak fukk ak ñett malaat ñoo ñàkk seen bakkan mu des junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna yàlla xare ko àjjana di ñaanal ñooñu des hôpital tamit yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ñu wax ci reprise activité yi ci secteur bi nga xam moo nekk ci wàllu musique bi acteurs yi nag fi mu toll ñu ngi xaar bu baax a baax document lu koy dëggal lu koy biral loolu nag ñu ngi koy xaar bu baax bokk ñu déglu ci loolu kenn ci ñoom di Daniel Gomez mu indi ci ay leeral ci micro Babacar Samb. am na ñoo xam ne commencé nañu liggéey parce que ñu ngi doon xaar benn arrêté euh, gouverneur bu naroon a génn mercredi. mercredi ba lay passé parce que ñun bi ñu bi ñu gisee ak euh, ministère de l' intérieur ak euh, ak ak topp ci ministère de la santé ñoom waxoon nañu ne ñu ci woon benn problème kon duñu jox dañoo jox sa autorisation pour ñu en tout cas petite salle yi mën a liggéey euh, ministère de la culture woo ñu ne ñu suñu seen protocole bi validé nañu ko kon léegi lu ci des rek fii ak suba incha allah gouverneur bi dina signé arrêté bi mais ba bés bi bésu tey Euh, arrêté bi génnagul voilà donc moo tax it da nga am euh, fële Saly am na ay musiciens yoo xam ne jot nañu jouer gendarmerie ñëw euh, jàpp leen parce que ñoom jotuñu benn ben benn document officiel parce que ba léegi ay ci waxtaan lañu la ñu joxe autorisation mais kayit bi que il faut ñu gis ko pour gars yi mën a liggéey en tout cas ba seen seen seen xel yi dal ko ñun bi bi ñu amee trois trois mois ñetti weer ci kii ci ci mbas mi waxoon nañu ne que problème yi dafa graaw fu mu ne nii ñu bëri ay artistes yi di jaay seen instrument yeneen yi nga xam ne dañ leen di dàq seen kër ndax fay ñu seen waaye loolu moom moom métti na loolu am na ñoo xam ne même ci plan social xa borom kër boo xam ne boo demee mënuloo yor sa jaboot am na sax ay cas de divorce yu ci topp defe naa loolu yëpp war nañ ci bàyyi xel parce que benn problème social la voilà c' était li ma wax ne itam ci plan économique secteur bi mu ngi mu ngi bëgg a euh, perte loo xam ne lu mot que vingt quatre milliards fi ba ba bi di jeex kon war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. am na ci xel baa ñu baax a baax ñuy wax ci journée mondiale. bu travail décent fonction bokk na ci ak wàllu ne kat yi fi a baax ndaxte kat di ñaxtu bés bu nekk rawatina tamit li xew fële ci agence de presse sénégalaise ko ci micro Aïssata Gueye Ba boo seetloo àdduna réew yu bëri mbir mi ni mu waroon demee demeewu ko fii ci Sénégal aussi boo seetloo dëgg la am nañu au conseil du dialogue social te soxna si ko jiite di jàmbaar ju ñëpp nangul njàmbaara waaye problème bi du foofu problème bi lu mu nekk nekk jàmbaar te nguur gi taxawul ni mu war a taxawee mbir mi du sotti tey jii Sénégal dialogue social social de restitution la ñuy def passif social bi kenn xamul nu mu toll te nangu wuñ cee wax inéquité yi kenn xamul nu mu toll te nangu wuñ cee wax te pourtant buñ ci waxoon solution mën na am rax ca dolli kër yi nga xam ne nguur gee leen ëmb muy APS ñu ngi fay toroxal ay liggéeykat jël secrétaire général lu toll ni syndicat SYNPICS secrétaire général bi ñu suspendre ko ay weer a ngi nii lu ma ëpp juróom-benn weer a ngi nii ñu suspendre ko ci liggéeyam ak ci salaire am amul salaire ba pare ñuy dàq ay jigéen ñu xam ne ay kilifa lañ woon foofu ay responsable lañ woon foofu ñu leen dàq anam yu xam xam ne tegwul ci yoon suspendre nit ki ay weer loolu sanction boobu amul ci code du travail nit ki da nga koy dax wala nga sanctionné ko mu continuer liggéeyam waaye li fa xew kenn musu ko gis lu xaw a mel noonu aussi am na solo ay kër yu nga xam ne nguur gee ko géré ba pare dialogue social bi nga xam ne secteur yi nga xam ne nguur gee ko contrôlé muy njàng men njàngale mi ak pàcc mi dialogue social bi ci secteur yooyu aussi demeewul noonu dialogue social de la ñuy wax ne kon loolu bu amee mënuñu wax travail décent fii ci Sénégal Cheikh jëmoon nag suñu ganu kër ci catal ñu wax ci ñàkk ndox ñetti fan yi nag ndox dafa ñàkk unité 7 9 10 bu Parcelles Assainies ña fa dëkkee kat sonn lool bëgg nag ku leen jàppale dañ ci ànd ak kii di Odile Mine Kelane paan siwo bidon lépp loo xam ne mën nañ ko rootee ndox moo wër robinet public bi nekk ci unité 11 bu Parcelles Assainies robinet bi daanaka moom képp mooy jox ndox jamono ji unité 7 9 10 ak 11 ñàkkum ndox mi doon lu askan wi yëg bu baax. maa ngi fii pour jàppale borom robinet bi rek parce que courant bi dafa bari. waaw damaa ñëw damaa ñëw root comme ñëpp. man ci fajar laa déggoon lañ tegoon nii vraiment nit ñi ko réservé yëpp jeex na. métti na man moom ay 6 heures laa fi ñëw Maran am na ñoo xamante ne depuis démb ñu ngi fi toog di xaar. seen rang egg ñu ñëw jël. ñenn ñi bu ñu nee yëg nañu communiqué seen o ci ba ñuy wax ni ndox dafay ñàkk ci ndakaaru jamonoy màggal gi ñeneen ñi ñoom nee nañ yëguñu ko benn yoon. dañu annoncé ci rajo bi ne robinet na tëj. non def nañu réserve mais ndox ndox la kenn dafa tàng. soo xëyee di nga sangu woon di nga sangu bala ngaa tëdd di nga sangu di nga naan dafa tàng c'est tellement chaud foog nga utiliser ndox. ñàkk ndox bi ñun ñii sa yëguñu ko woon dañoo jékki-jékki rek robinet yi tëj depuis démb ba tey jafe-jafe jëm ci ñàkkum ndox doon na lu ñuy dund daanaka bés bu ne. deset moo moo ñoo gën a sonn si ñàkkum ndox mi presque mat naa daal ñu ñu ngi ñàkk ndox chaque jour metti na trop mun nañ see dimbale bu baax a baax. ñun unité sept lañ dëkk foofu moom amul ndox musul am ndox. te foofu problème ndox am na toujours parce que ñoom nee ne xaw ma problème kii bii quoi moo am problème euh, tuyaux yi. parce que gars ñëw nañ foo ñëwati c'est la même chose jusqu'à foofu moom bu amee tuuti problème ndox rek kenn du am ndox. ñetti fan gisuñu tokk ndox ci seeni robinet askan wi nga xamante ne ñoo dëkkee ci unité 7 9 10 naka noonu 11 yu Parcelles ni ay jafe-jafe yu tar lañuy ñuy dund ngir am ndox mile nee nañu nag ñu ngi am yaakaar bu baax ni mbir mile dina am saafara ci fan yi ñu dëgmal. waa CNO nag wax nañu liggéey bi jeex na ndox mi dinañ jëm jeex na démb ci guddi ndox mi sax bu commencé na ñëw bu baax a baax rawatina nag ci fi mu ñàkkoon yëpp Ibrahima Fall Wade directeur territorial bu Dakar ci micro Ndeye Mariam Ndiaye. travaux yi ñu tàmbali woon yàlla jàpp nañu euh, tàmbali nañu ko ci date ak heure bi ñu waxoon pare nañ ko aussi ci date ak heure bi ñu waxoon euh, et depuis ci guddi gi ñu génn nii euh, remettre nañ en service système bi donc usine yaa ngi daw réseau ubbi nañ ko. Euh, et yàlla defoon nañu aussi euh, bi ñu xëyee ci suba situation bi ñu am en terme de de de moo gën suñu prévision yi donc euh, xëy na peut-être diggante bi nit ñu demoon màggal moo ñëw ñu giseegul et tout donc moo waral ndax mi gën a gaaw a teel a ñëw ci yenn zone loolu nag dañu may yaakaar pour ko globalement situation dina revenir à la normale dans les meilleurs délais donc li ëpp solo aussi fu mu toll nii ñu ngi dispositif de de d' accompagnement def nga xam ne ak suñu camion ci terre yi duñ ko bàyyi dañ koy maintenir ba nga xam ne quartier yi mujjee am ndox dinañ dem ba am ndox comme li ñu ko doon amee avant intervention yi su ko defee la ñuy mën a livrer dispositif mais maa ngi leen di confirmer ne travaux yi pare nañ ko ci date bi ko bëgg woon et que remettre nañu en service bi depuis guddi gi ñu ginnaaw bu amee nag euh, ñu jagleel tool juróom-ñaari kilomètres yoo xam ne ay yoon la euh, ci Promoville maire Passy bi nag bëgg na ñu defaat ko yeneen yoon su ko defee ñëpp mën gis sa bopp rawatina nag euh, gox yi dem ci ay Toubacouta ak yu ni mel Pape Adama Cissé lay wër ci micro Ngor Sarr. nekkul li taxaloog frontière bi rek. sur 100 kilomètres on est toujours sur la frontière tali Macky Sall bi moom ñu ngi koy xaar na fi wax nañ ko ko nee nañ ko tali bi jogee ni Fatick tali bi jógee Bambey ñëw Fatick jógee Fatick ñëw Passy ñu koy wax route nationale 9 dañ bëgg mu continuer bu mu yem Passy na continuer dem Daaru Kër Mor Khorodia dem Niassène dem Kër Samba Gueye dem Nioro Alsantal dem Tere ji Kaarang tali boobu buñ ko defee lépp lu ñuy béy fii dinañ ko mën a évacuer facilement lépp loo xam ne euh, ñuy dundee la foofu lañ koy béyee c'est la zone de production le président xam na ruxu bi bu baax xam na li ñu fiy béy ñi ngi fiy béy ceeb ñi ngi fiy bay mboq ñi ngi fiy bay gerte ñi ngi fiy bay dugub li ñuy bay fii amul fen fu ko ëpp li ñuy bay ci Sénégal te tali nag développement la loolu président comprendre na ko bu baax donc ñu ngi ko ci gën a ñaaxat pour instruction yi mu jox Promoville ñu gaawal ko ndax joxe na instruction yi ñoom joxe na ko te xam nañu joxe na ko ndax ministre bi ñëw na ba fii ne jox nañ ko instruction yooyu Sud FM ganu bés bi Cheikh Diop la yow moo jiite CNTS FC Cheikh Noxtaan ak Aïssata Gueye Ba. Cheikh Diop ñu ngi lay nuyu yow yaay secrétaire général CNTS FC tey nag ñi màggal lu ñu naan journée mondiale pour un travail décent ci yow ban taxawaay la syndicaliste yi war a yor ngir rek mën a dooleel li di nekk nu liggéeykat yi. syndicat yi boo yi ëmb àdduna bi yëpp d'ailleurs mun naa wax ne eh, li ñu waroon a def def nañ ko ba mu nekk programme tey xeex bi ñu mënee ci biir OIT ay at crise wu 2008 crise financière économique 2008 ba léegi ñu ngi mënee combat boobu yàlla dogal na partenaires yi seq OIT muy travailleur employeur ak état d'accord nañ ci notion travail décent ak li mu ëmb travail décent mooy képp nga xam ne nit nga am nga droit am liggéey te liggéey boobu war na la jural teranga li maam Cheikh Ibra Fall di wax jëf jël ñàkk pet loolu war am kon travail décent war nga am sécurité fi ngay liggéeyee war nga am sécurité sociale ci sa njaboot boo feebaree mu mën a faju bu leneen amee ñu mun leen a jël en charge notion travail jëmm tant loolu amul travail décent mënagul am ba tax na OIT am na programme bu travail décent bu nga xam ne daf ñuy nangul ñu def dialogue social bu am njëriñ daf ñuy nangul aussi nit ñi ñu jox leen ay liggéey te liggéey yi am salaire yu nga xam ne dinañ ci mën a dund ak seen jaboot dañ nangul aussi ñu am euh, couverture sociale protection sociale retraite ak lépp lu nga xam ne protection sociale daf ko laaj dañ ko war a am mais également dañu war a yemale góor ak jigéen ñiy liggéey du warul am xaj ak seen programme boobu ñun ñëpp ci d'accord kon war nañ ko doxal. yan gën a sonn jamono ji boo seetloo àdduna réew yu bëri mbir mi ni mu waroon demee demeewu ko fii ci Sénégal aussi boo seetloo dëgg la am nañu au conseil du dialogue social te soxna si ko jiite di jàmbaar ju ñëpp nangul njàmbaaram waaye problème bi du foofu problème bi lu mu nekk nekk jàmbaar te nguur gi taxawul ni mu war a taxawee mbir mi du sotti tey jii Sénégal dialogue social de restitution la ñuy def passif social bi kenn xamul nu mu toll te nangu wuñ cee wax inéquité yi kenn xamul nu mu toll te nangu wuñ cee wax te pourtant buñ ci waxoon solution mën na am rax ca dolli yi nga xam ne nguur gee leen dafay toroxal ay liggéeykat jël secrétaire général lu toll ni syndicat SYNPICS secrétaire général bi ñu suspendre ko ay weer a ngi nii lu ma lu ëpp juróom-benn weer a ngi nii ñu suspendre ko ci liggéeyam ak ci salaire am amul salaire liggéeyul ba pare ñuy dàq ay jigéen ñu nga xam ne ay kilifa lañ woon foofu ay responsable lañ foofu ñu leen dàq ci anam yu nga xam ne teguwul ci yoon suspendre nit ki ay weer loolu sanction boobu amul ci code du travail ki na ko mu continuer liggéeyam waaye li fa xew kenn mësu ko a mel pare dialogue social bi nga xam ne secteur yi nga xam ne nguur gee ko contrôlé muy njàng meeg njàngale mi ak paj mi dialogue social bi ci secteur yooyu aussi demeewul noonu dialogue social de restitution la ñuy wax ne kon loolu bu amee mënuñu wax travail décent fii ci Sénégal. waa léegi lu ciy pexe. mais solution soxna si bu CNTS taxawee CNTS FC taxaw INSAS taxaw CSA taxaw UDTS taxaw ñu tëral suñu programme programme boobu buñ ci yeggee di nga fa nekk presse bi yëpp dinañ fa nekk situation bi xew APS ak Soleil xew social bi ci secteur éducation ak santé xew ci système de rémunération bi ci wàllu inéquité yi mënatul ci taxaw fan néew di nga xam niñ ciy taxawee may ñu tuuti rek. Cheikh Diop ngi lay jaajëfal di fàttali nag yow yaay secrétaire général CNTS FC. La revue de la presse, sur Sud Le Soleil, Le La écoutez la différence.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 gën a neex sa bu may naan sama boisson punch ay goût yu bees neex lool ak parfum yu bari orange ananas pomme mangue coco limonade ak cola punch cafka bii fi ci sànno moo mën ci xew seen boisson punch moo leen di may li ci yéene kaay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 Matam Banok Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 macha allah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire. les établissements mbay et frères seen boisson punch ndox mu sell mii di waalo ak SPEM Sénégal premier équipement et machine ñoo leen di may seen revue de presse Ndeye Mariam Ndiaye asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm màggal bu Touba démb lañ ko doon amal ci dëkk bu sell wi coolikaay bi di Sud Quotidien du ñu xamal ne démb foofu nga xam ne moom mooy ci diwaanu Touba foo sànni mbàtt mu takk bëri woon na nag ay yu ñëwoon ngir màggal Cheikh Ahmadou Bamba grande mosquée bu Touba foofu nag la taalibe yëpp buggoon a dem wante suñu naataango yi ñu ngi ñuy xamal ne lépp lu jublu ci xeex gi nga xam ne ñu ngi koy xeex jëmale ko ci mbas bi di Covid 19 dëggal nañu ko fa nakk ci biir grande mosquée bi ndax ndaxte foofu képp ku fay dugg boo takkul amul masque dañ lay jox masque nga dugg ba pare daal di sellool di raxas sa loxo ak tamit ñu lay jox ay gel hydroalcoolique autolikaay bii di Sud Quotidien du ñu xamal kon ne ñi bokk ci biir comité d'organisation bi ñoom dañoo xar seen tànku tubéy di xam leen ni képp koy dugg ci biir grande mosquée bi moom faw nga daal di sallool ak lépp loo xam ne dafa jublu ci wàllu geste barrière yi autolikaay bii di la Soleil li ni mel tamit la daal di gis ca grande mosquée ak tamit ci yeneen bërëb yi nga xam ne daal nit ñi ñu ngi fa doon dem ngir di fa wante nag ci mbedd bi yi la ñu nemmeeku moom mooy nañu ëpp nag ci taalibe yi takkuñu woon seen i masque ñi ñoo ngi ko wàccee ba ci seen baat ñeneen ñi daal di koy téye wante loolu yëpp nag autolikaay bi jël soleil mi ngi ñuy xamal ne ci mbedd bi la yem ndaxte képp ku bëggoon yegg si nag ci biir grande mosquée bi ak tamit ci yeneen mausolée yi faaw nga daal di takk li nga xam ne nag moom mooy sa masque autolikaay bii di critique ne kon lañ doon séntu ci wàllu màggal bi yëpp dafa mel ni ne daal dinañu koy amal foofu nga xam ne moom mooy ci biir Touba ndaxte xeex bi nga xam ne ñu ngi ko doon ne nag ñoom ñooy taalibe murit yi daal dinañ ciy def seen këmtalaay kattan màggalub atum ren autolikaay bi di direct news ne dafa mel ni sax ne mbas bi wàññiwu ci lenn ndaxte mbooloo bu takku la ñu fa daal di nemmeeku autolikaay bi di laas tamit di xamle ne mbooloo bu takku ñoom ñoo teew atum ren ci màggalub euh, Touba wante it ci wàllu accident yi lañ ca nemmeeku ci atum ren moom bëri na ndaxte ci wàllu accident yooyu am na ci lu tolloo fukk ak juróom-ñaari nit yu ci ñàkk seen bakken atum ren daaw ñu ngi toll woon ci fukk ak ñett ci wàllu jafe yi yi nga xam ne dañu koy nemmeeku ci wàllu ndox atum ren moom def cee fës loolu ndax ci culikaay bii di laas mi ngi ñii xamal ne ñàkkum ndox gu tar lañu nemmeeku ca Touba te nag loolu dafa war a tax ba fu mu nekk nii ñu toog waxtaan xool ba xam naka la ñuy indi ay saafara yoo xam ne daal moom mooy tax ba ndox moom dootul tumuranke euh, ci période màggal soxna Aïda Diallo moom préfet diwaanu Mbour daf ko tere nag mu amal màggal foofu nga xam ne moom mooy ca diwaanu Médinatul Salaam culikaay bii xelal Aïda jàlloo ci wàllu yoon ñoom de dañu ko nee li du dëgg du yoon ba sax mbir ya yóbbu nañu ko ci kanamu yoon ndaxte bu ñu sukkandikoo euh, ci ay kàddu ñi nga xam ne de ñoom ñooy ay conseil Aïda Diallo ñoom la ñu gis moom mooy ne li nga xam ne moom la préfet bi sukkandiku ngir tere soxna Aïda Diallo daal di amal màggalam boobu teguwul fenn kon ñoom dinañu ko yóbbu ci kanamu yoon ñu jukki jëmale ko nag ci mbirum troisième mandat ndaxte ba léegi coow laa ngi nekkur tey jii sax ko ca wax moom mooy Pierre Sané nekk secrétaire Thiès bokk tamit ci euh, bureau politique bi julikaay bi di les échos du ñu jottali ay kàddoom ndaxte moom xam ne ñoom ñoo jot a nekk ci bopp réew mi daal di ne xamle ne ci wàllu ñetteeli mandat moom du ko nangu tey du ko nangu ëllëg nee nañu nag kàddu yooyu nga xam ne moom la daal di fësal merloo na nga xam ne ñoom la bokkal euh, parti ndaxte ku ci mel ni Kajali Gassama ak Mamadou Mbodj Diouf daal di nañu koy tontu tontu bu saf sàpp julikaay bii di tey jii daal ne ñëwaat nag ci ab mbuxum boo xam ne dañu ko nemmeeku woon ca IPRES bu mu am ci lu tolloog ñaar téeméer yu tegal juróom-ñaari millions yoo xam ne dañu ko faa sàcc ñi def li ni mel nag autolikay bi di mi ngi ñuy xamal ne ku ci nekk ña nga lay tàmbale di déglu fa li nga xam ne moom mooy ca sûreté urbaine wante kii di DRH bi mi nga xam ne dañu ko waroon a déglu moom dafa jékki-jékki rek wax ne dafa feebar keneen ki moom ñu daal di koy jël yóbbu ko nag ca di wax ne moom it dafa feebar ngir dañ ko faa war a yóbbu ngir daal di koy faj ñu ne déet ni waay keneen ki nga xam ne jàpp nañu ko muy Ndey Coro Dia moom de taqal na ñu bëri nag ci wàllu luubal googu suñu naataango yi tamit di lim sax waa hypermarché exclusive ak ko jiite di patron ba ñoom nekkite yow seen loxo dafa taq ci wàll gi ni mel colikay bii di libération nañu doyen des juges daal dinay tàmbali sax di jébbal ay mandat de dépôt jeexale ko wàllu lamb ak colikay bii di suñu lamb mi ngi xamal ne ci wàllu saison de lutte bi ñu dëgmal dina am nag ay combat yu am solo yu neex yoo xam ne dinañu ko fi ràññeewante ñaari combat yi nga xam ne benn bi day nekk ci diggante Balla Gaye numéro